waaw salaamaaleykum waaw Macodou Fall euh, man maay président collectif impact de terre waaw wax dëgg yàlla tey dañu ñëw wax dëgg yàlla pour attirer seen attention ci li nga xam ni moo xew ci impact de terre deuxième phase euh, bi ñu nekk euh, fële à Sébikotane wax dëgg yàlla ñooñu état de Sénégal moo bëgg jël seen kër donc proposition yi ñu leen jox ci seen barème mi vraiment mu doon proposition yu dérisoir yi nga xam ni montant yi baaxul ñoom ñu doon manifester def sitting tojuñu baarewuñu tali defuñu dara seen bunt yi nañ nekkoon takk seen brassard rouge mais ñu interpeller leen gendarmerie yi ñëw fekk leen foofu interpeller leen jàpp leen yóbbu leen ñuy vingt cinq personnes yi nga xam ni jàpp nañ leen ñu yóbbu leen ci brigade euh, fële jam ñaajo donc pendant deux jours muy samedi bi ak dimanche bi ñu xëy leen di ñu defeere leen fii tribunal Dakar donc ñu defe ni woon dinañ leen bàyyi bàyyi wuñ leen ñu dañ leen di defar retour de parquet pour téyewaat leen ba la lendemain muy tey donc euh, téye buñ leen téyee ba la lendemain naqari seen doom yi ñoom tamit ñu jug di manifester pour ñu bàyyi seeni parents yi ñoom tamit ñu jàpp ci onze personnes ci ñoom ñu indi leen fii ci tribunal bi tey tamit ñu defaat leen beneen retour de parquet ba nga xam ni suba nañ war a gisaat procureur wax dëgg yàlla ñuy naqarlu li nga xam ni tey ji xew na ko ci Sébikotane Sénégal yëpp di ko naqarlu parce que tey jii kuy sénégalais war nga jooy kuy sénégalais war nga mën a wax dëgg yàlla naqarlu li nga xam ne tey jii muy forcing muy jaay doole muy euh, ëttal sa askan euh, ñu def ko ci impact terre bi donc ñun li ñuy demander mooy nañ leen libérer nu mu gën a gaawee. jàpp nañ 37 personnes yi nga xam ni tey jii defuñu dara lu dul laaj seen ak ak seen yelleef donc ñu ngi interpeller aussi le président de la république pour ñu dugal ci loxoom ñu gaaw leen libérer nu mu gën a gaawee. jërëjëf.